Bonjour et bienvenue dans cette page météo du jour, jeudi 4 septembre 2014. Pour cette journée, retenez des conditions favorables à l'occurrence de pluie accompagnées d'orages qui seront observés sur la partie sud du pays, plus précisément à Kédougou, Kolda, Sédiou et Giguinchor, avec extension probable au niveau des régions du centre-sud, à Tambacounda, Kaolak, Kafrine et dans la soirée vers la nuit La chaleur humide sera plus ressentie sur l'extrême nord à Podor et Matam avec des températures qui peuvent dépasser les degrés. Les visibilités resteront bonnes alors que des températures retenez que la minimale au petit matin sera enregistré sur la partie sud du pays, plus précisément à Kédougou, 22 degrés. La maxi, ce sera à Matam, 28 degrés entre les deux, Dakar, 26 degrés, Saint-Louis, 27 degrés, Podor, 27 degrés également, Djurbel, 26 degrés, Linguerre, 27 degrés, Kaolac, 26 degrés, Tambacounda, 24 degrés, Juguinchor, 24 degrés également, Kolda, 23 degrés. Une légère hausse des températures sera observée dans l'après-midi dans l'après-midi avec une maxi de 39 degrés et ce sera sur la partie nord du pays, plus précisément à Podor et Matam. La minimale reste à Dakar l'après-midi 30 degrés, entre les deux, Saint-Louis 37 degrés, Diourbel 35 degrés, Linguère 38 degrés, Kaolack degrés, Tambacounda 34 degrés, Jigashore 32 degrés, Kolda 32 degrés, Kédougou 31 degrés. La première marée haute du jour est prévue dans la soirée, La seconde à 16h30 minutes. La première marée basse, 10h08 minutes. La seconde, 22h31 minutes. Retenez que la mer sera peu agitée sur l'axe nord Dakar-Saint-Louis, peu agitée également sur l'axe sud dakar cap

mu nekkoon euh, prévision météo yu tey jeudi 4 septembre dina xaw a tàng nag quand ah, donc sàlloo leen di euh, lekk lu am ndox mais xaal fruit la wala légume yow bul tontu rëy nga làmmiñ trop te gaaw gaaw a tontu buuba <laughs> surprise. xanaa balaa nga may wax affaire xaal. <laughs> ñu nuyu la ah <laughs> mais yow di nga ñëw nuyoo da nga ñëw nuyu kenn ah. mondial sax la ñuy wax comme yéen waaw ah, mais booy nuyoo da ngay joxe loxo wala. Euh, di fi mu ne nii moom. <laughs> <laughs> Euh, euh, xaal moom wala melon melon fruit la wala légume. ah loolu de defe naa su ma juumulee fruit la ok kii yaa melon. xaalu melon. xaalu melon waaw melon. <laughs> wala légume. fruit wala légume pourquoi bu nekk pourquoi euh, euh, melon war a nekk légume légume la en tout cas dans la classification des fruits et des légumes. <laughs> Uh-huh. melon légume la tomate fruit la. d'accord donc l'essentiel mooy melon légume la. tomate et pourtant ñun dañuy jàpp ni melon. fruit la fruit la et ñëpp légume lañ koy teg alors que. fruit alors que fruit la melon ñëpp dañuy teg ni euh, fruit la alors que légume la légume bu neex la léegi maintenant fais des recherches après nga. wax ñu pourquoi ñu jël euh, melon war ko def euh, légume de leen nekk yu am ndox ah. ci tàngaay bi defe naa yooyu yëpp am na solo ñu jàll ci jóg-jóg.